بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكتوب الرحمن يلين دي نيو دي دمني كبرام بتوارك وتعالى فسيري دي لسوات اغيان تسون بندي بي تيري بي دي الدروس الأولية حمد نيو تولون تي أتب سحوي maanaam sujjootu njuumte sujjoot boo xam ne ku juum ci julli moo koy waral moo xam sujjootub qabla la wala sujjootub baada euh, ñu toll ci maa hukumu man zaada shay'an fi salaati sahwan laaj bi mooy ana lan mooy teb koo xam na dangaa dolli ci julli dara te fekk dangaa juum mu daal di indil tontu ne la yasjudu dafay sujood ida tazakkarahu su fekkente ne fatliku na ko li sahwi ngir njumte googee sajjidatay ni ñaari sujood lay sujood baxda salaami gannaaw bu salmalee comme dafa dolli te ci masab malik la nekk kon ki do juum dolli bu salmalee day sujoodaa jeneen ñaari sujood dal di salmal mu ne la maa hi al awqaatu lati tukrahu fiha alsalaatu ana lan mooy waxtu yi nga xam ne dañ caa sib julli xam nga ne julli am na waxtu yoo xam ne dafay araam am na waxtu yoo xam ne dañ koo sib ma laaj la nag waxtu yi nga xam dañoo sib ko ci julli wala dañoo tere ko ci julli al awqaatu lati waxtu ya nga xam ne tukrahu def na sib fiha ci moom asalaatu julli kama yati comme nii mu dukke nee na def na sib a naafilata jullik naafila karaahatu tahrimin sib goo xam ne sibuk araamal la maanaam dañ koo bañ dafa araam loola kañ lay doon inda tuluuxi shamsi fa nga xam ne jant baa ngi toll ci di fenk wa inda gurubiha ak fa ñaari barab yooyu dañuy tere ku fa julli tere ak araamal wa inda xutbatil jumaati ak waxtu wa nga xam ne imaam ma ngay xutba ci àjjuma nee naa leen téere bi ci mazhab Malik lay jàngale waaye eh, su imaam dee xot ba moom eh, la fa gën a dëgër te gën a wér mooy ki dugg si ci jàkka ji bala muy toog mën naa julli ñaar rakkaay yu woyof yu xaw a gaaw waaye nag ci masab Malik moom dañuy tere ko julli waxtu woowu ba tey watu kuréew def na sib karaahatu tanzihiyatin cib goo xam ne àggul ci cibug araamal waaye ci bug tere rek la ci bug maanaam waxtu woowu daal la gën mooy bañ caa julli baxada salaati subhi gannaaw buñ jullee suba ba noppi ilaa xalli naafilati ba keroog naafila di dagan loolu nag mi ngi tolloog ba keroog jant bi di fenk ba yëkkati ku li tolloog ko gopp diggante boobu dañuy sib ku fa julli wa baxada salaati al asri ak gannaaw boo jullee takkusaan ba noppi dañuy bañ ko julleeti ilaa xuróobi shams ba kaw jant bi di so nee naa leen loolu téere bi ci mazhab Malik lay jàngalee waaye ba tey e, ki nga xam ne dafa julli e, takkusaan bu demee ba jant bi so buñ noddee diggante timis ak gee ak takkusaan kon bu jant bi xasee so buñ noddee mën na fay mën na fay julli ñaar rakka waaye bu dee mazhab Malik moom day wax ne wa ba'da xuróobi shamsi ilaa salaatil maghrib ak gannaaw bu jant bi soo sax ba keroog ñu jul timis ba noppi nga xam ne moom diggante takkusaan ak timis moom dafa sib ak julli ci diggante boobu bu dee ci masab malik la kon ki julli takkusaan balaa muy sañ a dara day bàyyi ba julli timis ba noppi waaye nag bu dee ci yeneen masab yi wala rek ci sunna su yonente bi salaa salaam eh, ki julli takkusaan sañta julli ba keroog jant bi sox waaye ba jant bi xasee sox ba ñu noddal timis foofu mën naa julli ñaar rakka ndax xadis yonente bi sallallahu bi muy wax ne sallu qabla al maghrib sallu qabla sallu qabla al maghrib liman shaa man ngeen a man ngeen a julli njëkk timis man ngeen julli njëkk timis képp ko mu soob kon bala ñuy àgg ci bunt bi ci topp ñu leeral fii tuuti rek mooy léeg-léeg ci biir njàngale mi ñuy wax ne kat téere bii dafay jàngale ci mazhabu Malik loolu moo tax léeg-léeg mu am ay tomb yoo xam ne dañuy leeral ne ci mazhab Malik la koy jàngalee waaye kat am na leneen lu gën a dëgër lu gën a wér lu wuteeg loolu loolu nag bu ci kenn dégg ne mukk dañuy jam mazhab Malik wala dañuy jam Malik ci boppam déedéet du loolu waaye dañuy xam ne. amul kenn kenn kenn ci boroom xam-xam yi koo xam ne maanaam sunna su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lépp agsi na ci moom moo xam boroom mazhab yi la moo xam ku mu mën a doon waaye koo xam ne léppi sunna léppi alquran lépp danga koo dajale nga xam ne sab mazhab wala sa école ba ngay jàngalee ku fa génne dañ naan day mën a jot lépp sunna loolu kenn amu ko ci boroom xam-xam yi loolu moo tax doo fekk mukk ci borom xam-xam yi koo xam ne dafay wax ne nit ñi nañ tënku ci ab mashabam bu ñu ko génn déedéet amul benn borom xam-xam boo xam ne day wax ne ne nit ñi tënku ci mashabam borom xam-xam yi li ñuy wax mooy dañuy wax ne képp koo xam ne gis nga ab bu wér bu wóoteeg li nekk sama masab na nga ko fa bàyyi te na nga fi bàyyi sama masab te xadis boobee imam mii ci boppam day wax ne képp ku mën a doon ci jullit ñi say wax daa am luñ cay jël am luñ la cay delloo ba mu des kenn muy borom xabru boobe te mu jublu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kullun minna yuxasu min qawlihi wa yuraddu ila saahibu hadha al qabri ba mu des kenn ku ne des na jël ci moom di ko delloo ba mu des boroom xabru yi boroom bi mu jublu ci yonente bi sallallahu alayhi wa wax saa bu ngeen gisee samay wax mu wuuteeg xadis nangeen ngeen sànni sama wax ca àll ba te jël xadisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam imaam Saafi imaam Ahmad noonu imaam Abu Xanifata noonu yeneen aima yëpp loolu mooy seeni wax kon yaari mbir moo tax ñuy leeral di wax ne téere bii kat dafa tënku ci masab Malik waaye am na leneen lu gën a wér yaar yooyu benn bi mooy boroom xam-xam yi santaane wuñ ku tënku ci seeni masab waaye ku jël sunna si rek lañ soxla ñoom beneen biit mooy amul benn borom xam-xam boo xam ne dajale nga lépp sunna kon dañuy mën a dogal ngant boroom xam-xam yi waaye tamit di bañ a tënku nag ci masa bi tënku goo xam ne bis boo gisee lu wér feneen nga ne duma ko jël loolu nag tekkiwut ne ba tey maanaam ne ci masab dafa wàññi dara déedéet tënku ci masab lu baax la waaye saa boo demee ba gis nag ci biir masab bi loo xam ne woote na ak xadis bu wér boo xamante ne boroom xam ne dëppoo nañ ak wéram ba nopi nekul hadith bo xamne buñu bu ci genn wet kon su baba nak ah day jaadu nga jëfe lila borom massa bi waxon te it mooy li la bi saa sant mooy topp sunnaam ta bañ a topp kenn ci ab xalaatam wala ci ab gis-gisam lol dañ newoon nañ ko leral ci ci leeralaal ko ci buntu bi ñu daal di ñew nag ci lu aju ci asaka nak ndax jeexal na ci julli kon ñu dugg ci addarsu saani achar bindub fukk ak ñaar ci ni ko borom téere bi toftalee bind boobu nag jëm ci asaka mu ne azakaatu asaka mu daal di ñëw ci laaj tontu nag maa hiya zakaatu ana lan mooy asaka loolu mooy laaj bi mu daal di ñëw ci indi tontu daal ne azakaatu asaka hiya moom as lati mooy sarax ba nga xam ne faradaha farataal na ko allahu yàlla ala kulli muslimin ci bépp jullit maalikin boo xam ne dafa moom alalam li miqdaarin maalumin waaye nag ci alal joo xam ne ju ñu xam la minal maal ci am kem boo xam ne bu ñu xam la maanaam lu tolloog nangam ab dayoo bu ñu xam minal maali ci alal ja waxiya moom nag aqsaamun ay xaaj la salaasatun yi di ñett daf laa bëgg xam la boo déggee ñoo naan asaka ci lislaam ab sarax la boo xam ne yàlla sunu borom moom moo ko farataal jullit ñi di ko génnee ci seeni alal mu am noo xam ne noonu lay toll ci alal ju ñu xam alal joo xam ne mat na saab mu ne loolu dañ koy séddale ci ñetti xaaj ñetti xaaj yi dana ci ñëw mu ne la al awalu bu njëkk ba al lu jëm ci xeetu ndundat maanaam li ñuy wax juru kër yi juru kër nag buñ ko waxee mooy lu demee nekke nag ak bëy ak xar ak gëléem <coughs> gëléem ak nag xar ak bëy yooyu mooy juri kër yi nga xam ne dañ ci génne asak kon mbaam génn na ci fas génn na ci berkelle it génn na ci ak xaj ak lu ko nuru yooyu bokkuñ ci juri kër yi nga xam ne dañ ci génne asak kon benn gi noonu mooy alxayawaanu bu ñaareel bi astimaaru meññet yi waxee ñoom alxamxu mooy lu demee nekke li wax bele wa shairu ak dugubi suuna wal xums ak mboq wa tamru ak tàndarma wa zabib ak rese wa zaytun ak olive euh, diwu olive yii mooy yi nga xam ne dañ ci génnee asaka ci xeeti meññeet yi a yeneen xeeti meññeet yoo xam ne nag des na ci génnee asaka xëy na kii mënta tudd meññeet yépp waaye dala ci jox ay ay exemple rek ay misaal xam ngeen ne fii déggu leen fi gerte te gerte dañ ciy génnee asaka gi déggu leen fi lu demee nekk ñebbe dañ ci génne asaka ak yeneen ak yeneen yoo xam des na ci génne asaka kon daal dañ ciy génne bu dee ci masab Malik mépp loo xam ne lu tooy la maanaam loo xam ne day tooy nga xam ne boo ko den diir bu gàtt day yàqu comme lu demee nekk xeeti eh, eh, ehm, xaal mën ngaa jàpp lu mel ne xaal walla ay mango wala ay basante sax xeeti fruit yi wala ay eh, jaxatu ak xeet yooyu nga xam ne boo ko dencee diir bu gàtt dafay yàqu moom yooyu duñ ko génneelu asaka moom pepp mu pepp mu wow rek moom ci lay wax nañ ci génne asaka donte loola ma waxaat la ma ca waxoon rek mooy ci mazhab Maalik lay jàngalee waaye am na ñoo xam ne dañoo wax ne rek yaa fi alladina amanu anfiqu min tayibaati ma kasabtum wa mimma axrajna lakum min al ardi na ngeen di dépensé ci yu tey yi ñu leen jox ak yi ngeen génnee ci biir suuf yi ngeen génnee ci biir suuf nag dara génnu ci yépp dañuy asakaal yëpp la ñuy asakaal kon ñaara ngi noonu benn bi mooy euh, juru kër gi beneen bi mooy xeeti meññet yi ba ñetteel bi asaalisu ñetteel bi zakaatul ayni yi kee kee rek bi ñu ko waxee mooy waxi moom ak zahabu mooy wurus wala fiddatu ak xaalis wurus ak xaalis lañ jublu ci kee moom dañ koy génneel asaka mu daal dina la xaqu bi haa des na te yéegal nag a jaaratu commerce maanaam kii commerce bagage yami commerce ak xaalis ba lépp da koy jàpp su matee nisaab saa bu at mi jotee mu dal koy génneel asaka xool nañ koy réglé mu génnee ko mu réglé ko noonu daal koy génneel asaka kon ñu ngi yamane foofu ba beneen samedi di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu defal ñun jégg ak topp te defal leen ko hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala wa sahbihi ajmain